من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ax di leen baal ax di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla boole baal di leen bëgg bu baax a baax a baax dina monte ko ak yéen ci gëj a gisee bi ñu gëj a gisee te xam ngeen ne loolu lépp ajiwul woon suñu coobare yàlla tabaraka wa taala ci mbaaxam ak kàttanam moonu baaxe woon ñu war a dem baytullahi alxaram daal di ziyaare ji néegu yàlla bu sell bi néegu tedd boobu tudd alkaaba mu nekkoon juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi bu ñu waroon dem joxe ji te wax dëgg yàlla bi ñu fa demee tamit borom bi tabaraka wa taala dimbali nanu lanu yóbboon ci ni ñu jàppee ak ni ñu ko xamee jàpp nañ ne joxe nañ ko noonu ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañ ko yàlla nangul mbooleem jaamu yiñ fa def ak ñaan yiñ fa def ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yépp yàlla nañ ko yàlla nangul mbokk yi wax dëgg yàlla ñaanal nañ leen bu baax a baax a baax a baax fépp fu nu dem ci barab yi bu dee Madina bu dee Alkaaba bu dee Arafat bu dee Muna bu dee Muzdalifa fépp fu na mun a dem bu dee jamra ya fépp fu na mun a dem wax dëgg yàlla ñaanal nañ leen te ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangu ñaan yooyu boole ñu ko àdduna ak àllaaxira mbokk yi sunu darsu tey nammonte ku lay nekk ak wax leen rek lenn taamulaat xaajun aada min hajjihi ay gendeeku ak ay seetlu ci benn mbokk jullit bu yàlla baaxe woon mu dem aji dellu siwaat ci ajam yenn seetlu yu mu seetlu ak yenn gendeeku yu mu gend gendeeku ci yooyu rek lañu mën a def sunu waxtaanu tey comme ni ngeen ko xamee mbokk mi nee na yàlla tabaraka wa taala xéewaloon na ma ma dem aji ci at bii mu ne bi ma demee ma nekk ci bi si aj yi mu ne jalastu ataamal fi mawaqif toog naa di géndeeku yenn ci ay barab yenn ci ay taxawaay wa manazir sahattuha ak ay yenn mbir yoo xam ne gis naa ko fa ci sama aj mu ne ma wax ci sama xel naa ko bind ci sama xalima ndax mu bañ a nekk lu réer amaana incha allah bu ma ci defee waxtaan walla ma fàttali ci ay nit amaana yàlla def keneen ku dul mën daat ci jëriñu mu ne waaye mbokk yi xam ngeen ne aj kenn mënul géndeeku lépp kenn mënul takk lépp kenn mënul peeg barab yépp waaye kenn mënta gis lépp ba daal di koy bind moo tax mu ne yenn yu ndaw ndawaan yoo xam ne romb na ma ci ay barab wala romb naa ko wala samay bët dal na ci wala sama xel dem ci wala ma séen ko mbir yooyu laa jot a takk mbir yooyu laa jot a bind pour amaana keneen ku dul man mënu koo jëriñoo daal di koy def ay tomb yoo xamante ne moom dina ci jëriñu mu ne loolu bokk na ci aj benn keno la ci keno yi lislaam waaye ci keno yi gën a màgg mbokk mi nee na man seetlu naa ne réewum Sénégal li ñu gën a sàggane ci àddina ci seen diine mooy aj ndax duñ ko jàng duñ ko jàngale wala bu fekkee dañ koy jàng dañ koy romb ca primaire mu ne looloo tax nga gis mu néew sax lu ñuy def waxtaan ci aj du dul ci ay jamonoom ci ay fan bu desee fukki fan ci la télévision yeeg rajo yi di commencé di waxtaan ci aj mu ne waaye ci lieu de conférence li ak place publique yi comme ni ko ñenn ñi defee daal di organiser conférence ne nañ ñu waxtaanal ci julli organiser conférence ci weeru koor ne nañ wax ci koor organiser conférence nañ wax ci tawhid organiser conférence nañ wax ci nangam nee na day néew trop moom sax nee na man musuma gis ne am na benn koñ wala ay nit yoo xamante ne organiser nañ conférence daal ne aj lañ bugg ku leen waxal looloo tax mu nekk fonk buggo réew mi gën a réere ci wàllu jaamu yàlla yi moo tax mu metti ci ñoom trop trop trop trop te benn la ci kenoy lislaam yi yi nga xam ne lislaam du mën a mat lu dul aj boobu doomu aadama joxe ko su ko mënee mu ne lii nag ma leen di wax ay gendeeku la yu ma gendeeku woon man allahu alayya biha mu ne yàlla moo ma ko baaxee xéewalal ma ko ma daal di koy tënk mu ne fa minha bokk na ci azamatul baari jàlla fi ula mu ne mbokk yi ku yàlla baaxee nga dem màgg nga dem màkka ci néegu yàlla bi mu ne li ngay njëkk a jàng mooy màggaayu borom bi tabaraka wa taala loolu moom dinga ko gis ne yàlla ku màgg la ndax mbooloo mi ngay gis nu ñu baree xeet wu nekk nit ku nekk làkk bu nekk ñépp bàyyeekoo ci pàkk yi ci àddina bi ñoom ñépp nekk ay maasi maasi maas oto yi sotti avion yi sotti bato yi sotti jawwu jeeg suuf si lépp a nekk ay nit mu ne ku taxaw loolu xool li nga xam ne yàlla rek mooy kenn yàlla rek a màgg ñi ñépp yàllaa leen tax a jóg yàlla tax ñu bàyyi seeni mbokk bàyyi seeni kër bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom bàyyi lépp lu ñu am waaye jël sax seen alal laxasaayu di wuy ji borom bi tabaraka wa taala ci woor bi mu leen woo kon ku taxaw ci kaaba gi xam ne yàlla rek moo màgg yàlla rek kay kenn di nga yëg ne sama borom tabaraka wa taala moo màgg nga gis ne ñii ñëpp moom la ñuy toroxlul ñii ñëpp moom la ñuy jublu si ñii ñëpp moom la ñuy wër ñii ñëpp moom la ñu bëgg mu ne loolu lu mu lay jural mooy wayasdaadu imaanan bi rabbihi mu daal di delleeku gëm boroomam tabaraka wa taala mbokk yi ñaareel bi ci gendeeku yi mbokk moomu bind te mooy ajkat boobu aji woon dellu siwaat bokk na ci gendeeku yi muy def mooy ixaatatullahi bihim mu ne xoolal ñii li ñuy bari bari bari bari li ñuy wuute wuute ci ay xeet ak ay làkk ak ay yaram ak ay barab yu mu jógee ñoom ñëpp borom bi tabaraka wa taala xam na leen allahu akbar ñoom ñëpp la yàlla xam amu ci ku ko réer amu ci ku ñuul ku weex ku xonq ku zone ku njool ku gàtt ku am ku ñàkk ñoom ñëpp borom bi xam na leen allahu tabaraka wa taala takk na seen lim ñaata leen ñaata lañ allahu akbar jalla jalaaluhu wa azakamalu yàlla màgg mbokk yi mu ne yàlla xam na leen laqad alima allahu fi aliyaihi bihim yàlla ci màggaayam ci kawam xaw na ñi ñëpp xam na ban heure lañ ñëw xam na ban heure lañ wàcc xam na fan mooy seen saxuwaay yàlla xam na seeni mbir yàlla xam na seeni yéene yàlla xam na sabab bi tax ñu bàyyi seeni réew wàcc ci réew mu màgg mi di makkatal mukarram yàlla xam na seeni bëgg-bëgg yàlla xam na seeni mébét yàlla xam na seeni taxawaay yàlla xam na fu nu fanaan yàlla dégg na seeni ñaan yàlla tabaraka wa taala ci màggaayam peeg na seen lépp laa yugaadiru kabira wala sagira min ahwaalihim illa ahsaha amul lenn lu ndaw wala lu màgg lu rëy ci seeni mbir lu dul yàlla tabaraka wa taala takk na ko moom jalla jalaaluhu wa azakamaluhu mbokk yi lii ajkat bi nee na moom xool na ko foofu gis na ko ne bokk na ci leneen li mu takk bi mu ñëwee ba jàkkaarloo kaaba gi gis mu ne wa man nazara ila taifina fi xawlil kaaba ku xool mbooloo mi wër kaaba gi di di ko wër ñii ñaata lañ mu ne ñu toll nii ñoo nekk ca safa ak marwa di daw mu ne ñu toll nii ñoo taxaw arafaat ci naaj bu tàng ba mu ne ñu mel ni ñoo nekk ca musdalifa bàyyee ko fa wommaatu ko jëm jamra ya mu ne ñu mel ni ñoo nekk ci seeni xar di rey ñu mel ni ñoo taxaw ca jamra ya di sànni mu ne am na ñuy watu am na ñuy wàññi mu ne ñi la ngay xool seen hadiyu mu ne ñee ngay wër kaaba gi mu ne lii jaaxal na ko trop ñii ñëpp fu ñu bàyyeekoo ñii ñëpp lan moo tax ñu jóg ñii ñëpp lan mooy seen yéene ñii ñëpp lan mooy seen bëgg-bëgg mu ne ñin ñii ana kan ci doomu aadama yi moo leen mën a takk ñee ngay wër kaaba kenn xamul nu ñu toll nombre bi wër kaaba bu toll noonu ma ngay safa ak marwa nombre bu toll noonu ma nga arafaat wala bu ko ëpp nombre bu toll noonu ma ña nga musdalifa nombre bu toll noonu ña ngay rey seeni xar nombre bu toll noonu ña nga ca jamra ya mbokk yi ñu ñu jàppalante ñu tëj micro yi mu ne nombre bu toll noonu am na ñuy watu nombre bu toll noonu am na ñuy wàññi nombre bu toll noonu am na ñuy seeti seeni addiyu nombre bu toll noonu am na ñu wommee koo jamra ya jëm kaaba ga di tawaafi mu ne ñii ñëpp ana kan moo xam seen lim ku dul allahu tabaraka wa taala ñii ñëpp lenn dong mooy seen mébét tey yàlla kontaan ci ñoom jéggal leen seen bakkaar loolu dong la ñu ñii ñëpp lan mooy seen mébét mooy ñoom ñëpp ay jaam lañ dañoo jublu si seen boroom ñii ñëpp luy seen mébét boroom boobu ñu jublu nangul leen tey seen jëf yi mu ne góor ak jigéen mag ak ndaw làkk boo xalaat ci àdduna nit koo xalaat ci àdduna xeet woo xalaat am nañ ci biir xeet woowu yàlla coppati fa ay nit yu leen représenté ci kanamu kaaba gi ci kanamu borom bi tabaraka wa taala mbokk yi bokk na ci li ajkat boobu seet daf ay taxaw seetlu mooy at tasgir bi yowmil jam'i mooy moom nee na lii de fàtte na ko yowmal xiyaamati fàttali na ko yowmal xiyaama waaw benn mbooloo ñëpp a ngi sol lu weex ñëpp a ngi fanaan ci benn barab wala ñëpp a ngi taxaw ci benn barab wala ñëpp a ngay daw ci benn barab wala ñëpp a ngay ñaan ci benn barab ñëpp sol yére yu weex ñëpp a toroxlu ñëpp ci suuf lan nekk mu ne lii day fàttali na ko yowmal qiyaamati bis bu ñu taxawee ci sunu kanam boroom ànd ak sunu mbalaan yu weex yooyu ñu ñu doon roobee ku taxaw bisu arafaat ci weexaay fanaan musdalifa ci weexaay woowu wëre kaaba gi ci weexaay boobu dem munaa ci weexaay boobu sànni jamra ci weexaay boobu du la fàttaliku rek du la ëllëg yowmal qiyaamati ni ñu yàlla waxe woon rek ni ma leen bindee woon noonu ngeen delloo si waat mbokk yi bokk na ci taxaw seetlu yooyu baqaaul xayri fil umma mooy boo demee màkk wala nga dem Médine nga amaat yaakaarat ci xeet wi ne day lislaam ba tey mu ngi fi jàmm yàlla yi day ba tey ñu ngi fi diine ji de ba tey ñu ngi fi ñi bëggoon yàlla bëgg yonent bi ba tey ñu ngi fi soo gisee mbooloo yi gis doomu aadama yi ku nekk ngay njëkkante place ngir gën a jege yàlla ngir gën a jege yonent bi looy jaay nga gis ku la ko ëppale jàng alxuraan julli tudd yàlla zikka tawaaf daw ñaan looy xalaat rek nga gis koo xamante ne moo la ko gën a bëgg loolu boo ko gisee lu mu lay fàttali mooy xeet wi ndeke ba léegi lu baax a ngi fi ba léegi am nañu bëgg lu baax ba tey islaam mbaaxaayam a ngi fi mi ngi fi des loolu bokk na ci lu doomu aadama di jële ci aj moo tax sunu mbokk bi aji woon seetlu ko daal di koy bind ne baqaau alxayr fil umma bokk na ci seetli asaaru daawa ala nnaas mooy boo demee màkk nga gis na ba léegi daawa mu ngi des am na ñoo xam ne barab yëpp daawa la biir jàkka yi dañuy daawa biir hôtel yi dañuy daawa biir oto yi dañuy daawa place yi ñuy fanaan dañuy daawa bu ñuy dox dañuy daawa tant yi dañuy daawa kon nga gis ba léegi daawa woote ci yoonu yàlla tabaraka wa taala mi ngi des ay nit a ko gëm fu nu dem moom mooy seen liggéey ñeenteel ci seetlu yi ba tey mooy mawaqif al birr al mubaarak ndeysaan nga gis mba léegi mbaax a ngi des ci kaw suuf bu demee mag nga gis ku boot yaayam nga gis ku uf papaam nga gis ku yenu doomam nga gis ku uuf soxnaam ñii ñëpp lan la ñuy wut yërmande yàlla tabaraka wa taala nga gis kee ngay saraxe togg lekk di joxe kee ngay joxe ndox kee ngay joxe fruit ku nekk rek la la yàlla xéewal nga jàpp ne war nga ci am tiyaaba nga gis ma ngi koy def kee yóbbu na baayam ngir am tiyaaba kee yóbbu na yaayam ngir am tiyaaba ki yenu na doomam ndeysaan boot ko wala mu fab ngir am tiyaaba ki uuf na jabaram ndeysaan kotumu ko ci ñaari loxoom ngir am tiyaaba kële ngay joxe lekk kële ngay joxe naan kee ngay saraxe alalam kee ngay joxe firwi ku nekk rek ndeysaan ak mbaax yaa ngi koy jaay ngir yàlla tabaraka wa taala yërëm kon mbokk yi lii lenn la ay tomb yu seen mbokk jullit bi nga xam ne dafa aji woon aadamin xajjihi mu daal di dellusiwaat ci ajam mu defoon ko te amulaat ay gendeeku ay seetlu ne woon bu dajeeg yéen incha allah def ko première dars fàttalante ko ak yéen ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp jéggal ñu njuumte yi waaye yéen tamit wërsëgal leen wér ak kàttan ak alal ju bari ju barkeel ba ngeen mën a dem yéen it ziyaara ji yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye ji dem joxe ji seen juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi muy alxaj ñaan yàlla tabaraka wa taala ni mu koy defalee yéen tamit mu defal leen ko maa ngi leen ziyaara di leen baalu àq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu